jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala monsieur le maire. Barthélémy Dias jërëjëf. réew ñu seet guy mu jiit ñu te jig askanu Sénégal donc damay joxe euh, Alioune Tall le maire de mu joxe ñaan ku nekk nag ci diine bi nga gëm nga def sa ñaan ñu fasaale suñu ñëpp suñu ndam suñu jàmm suñu xéwal bismillah na ko nekk def fatiha def falax ak salaatu bu waaye wéeru ñu def ñaan incha allah pour une victoire éclatante et sans bavure bismillah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 dans sa miséricorde et dans sa bonté infinie de donner une victoire, éclatante avec panache et sans bavure, avec ces leaders-là qui sont là, qui construisent l'espoir du Sénégal, en devenir. Je vous remercie de silence. Nous allons observer de silence. Et pour m'adresser à l'assistance. xam ngeen ni fu ñu toll nii tout le Sénégal nous regarde le monde entier nous regarde nous vous avons mobilisé ici pour demandons ici solennellement à tout un chacun de faire un effort pour écouter ces gens-là dañ leen koy ñaan ngir yàlla ci yar ak teggin li leen a jóg su ngeen génnee fii ngeen am lu ngeen yóbbu laissez les journalistes faire le travail et la salle nous le demandons le maximum de calme ñu bañ a perturber notre séance je vous remercie une fois merci beaucoup monsieur le maire kon ñu àndandoo ñun ñëpp wax amin te fas yéene tàmbale li nga xam ne moom moo ñu dajale fii tey ñu am mbégte ak kontaante ci dajaloo fii tey ak suñu ay camarades suñuy soppe suñuy am di jàmm suñuy sympathisants suñuy amis mais aussi suñu ay co-investis di am mbégte dalal presse bi journalistes yi ak ñi nga xam ne ay hommes de médias et femmes de médias lañu pour ñëw tey ci li nga xam ne mooy événement bi ñuy def muy le point de presse de lancement de la kàddu ñu koy wax la coalition valeur pour une alternative républicaine mu ñu gën ko xam ci turu VAR donc euh, sans plus tarder damay procéder à la présentation des différents leaders membres de la coalition ak seen ay parti wala seen ay plateforme yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir coalition donc comme ni ngeen ko xamee coalition bi coalition wu président Khalifa Ababacar Sall mooy taxaw député yi Kaana boobu. coalition bi mooy coalition bi nga xam ni da ciy fekk gëm sa bopp ak le président Bougane Gueye Dany. de Déthié yi nekk diggante Bakel wala Nord ak ñi nga xam ne ñu ngi ci est du Sénégal suñu xel dem ci ñoom ñu di xalaat di leen ñaanal boole ko di leen di wax ni suñu ay camarades yi nekk ci biir dëkk bi lancement bi Ndakaaru la waaye taxul suñu xel nekkul ci yéen donc nos investis des différents départements du Sénégal on vous fait standing ovation on vous encourage on aurait aimé pouvoir pour mobiliser à Dakar se retrouver ci biir coalition bi borom Dakar ci la nekk Barthélémy Dias